jërë ngeen jëf mbokk yi nuy teewlu dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee muy bàyyi ko fii ci uh, Touba Mbacké ci kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho te sëriñ bi dénk leen lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum mbënn mi fii ci uh, Touba Mbacké wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan an haadikin maridi mbokk yi xibaar yi tey jii dañu koy dooreek ak recensement bi nga xamante ni service yu état bi ci njiital sous-préfet bu Ndam di Abdoulaye Kharma amal nañ ko mu nekk euh, document wala données yoo xamante ni def nañ ko ci benn clé USB ñëw jébbal ko euh, kuréel gi nga xam ne moom moo di Junnatun Liman Nazamaho muy recensement boo xam ne lu toll ci fukki junni ak benn ak téeméer. ak fanweer ak juróom-ñeenti euh, famille yoo xamante nii jot nañoo loru ci li nga xam ne moom moo di euh, mbënd mi ba tax na données yooyu nag euh, kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatul li man nasama woo mën nañ cee basé wu ngir wéyale seenub liggéey ginnaaw buñ jébalee clé bi ki nga xam ne moom moo di Serigne Youssou Diop sous-préfet bu Ndaam di Abdoulaye ma am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu teelu ko dañu ñëwoon fii tey ci ndigalu kilifa yi pour indil comité bi nga xam ni xalif général des mourides moom moo ko mettre en place koy wax junnatun Euh, ñu indiloon leen résultat recensement bi nga xam ni ñoo ngi ko doon def ci dëkk bi bi nga xamee ni taw bi indi na fi ay loraange bi ñu ñëwee nag euh, dénombré nañu ni fukki junni ak benn ak téeméer ak euh, fanweer ak juróom-ñeent ñoo xam ne dañu am loraange ci ci ci mbënn mi donc léegi document bi jox nañ ko waa Junatun léegi bu ko defee ñoom dinañ ko exploité xool nan lañ ci mën a def am na ñoo xam ne seen kër dafa daanu am na ñoo xam ne seen miiru dafa daanu am na ñoo xam ne ndox mi dafa nekk ci seen biir kër am na ñoo xam ne seen i yére la yàq am na ñoo xam ne seen i meuble la yàq am na ñoo xam ne seen i dund la yàq donc mënuñu am benn typologie unique ci dégâts yi nga xam ne moom la ndox mi def mais daal xam nañu nii donc euh, pour cas yooyu yëpp ménages yi nga xam ne recensé nañ leen yëpp yu ci bëri spécifié nañ yan yàqu-yàqu la ñu am ba jox naa ñu koo mbokk yi ci fànn googu la ñuy desandi ba léegi ndax ki nga xam ne moom moo di Serigne Youssou Diop ginnaaw boo xam ne jébbal nañ ko clé USB bi nga xam ne ci lañ def euh, données yooyu nga xam ne moo jëm ci wàllum recensement yi moom sant na bu baax a baax service yu état bi ci njiital euh, ki nga xam ne moom moo di sous préfet bu Ndaam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko sur le terrain ba jébbal leen li nga xam ne moom moo di recensement yooyu nga xam ne daañu ci mën a sukkandiku ngir wéyal liggéey bi nga xam ne moom la leen Cheikh Mouhamadul Mountakha di xalifa général des Mourides sant ñu ànd teewlu kàddu yu Serigne Youssou Diop ma sant monsieur le sous-préfet d'abord ci li nga xam ne indi na ko ndax dafay liggéey boo xam ne li ñuy def ñun mënuñu koo def te sukkandikuñu ci loolu muy recensement bi te def nañ ko muy liggéey bu mucc ay ayib ndax ñun ñoo nekkandoo woon ak ñoom ci terrain bi xam nañ ne li ñu mobiliser ci ay agents euh, dépassé de deux cent et quelques agents yoo xamante ne kër gu ne dinañ fa wàcc ba li ñuy bind xam nañ ne dañ koy teg ci lu leer ndax kër gi dañuy dem ba xool ne lii euh, sinistré la ñu teg ci seen bët doo a mën a bind euh, boole ci ak lépp loo xam ne tamit mooy tax ñu xam ne li ñuy wax wér na kon ñu ngi koy sant di sant ci biir loolu l'état du Sénégal ndax loolu ndimbal la lu ñu indil waa Touba leneen li ci des itam mooy tey jii day bis boo xam ne ñoom biñ ñu tegalee loolu fekkoon na ñun ñu waaj ba jekk euh, ngir tàmbali sunub liggéey ndax xam ngeen ne comité bi mooy comité de pilotage bi dara taxu ko jóg lu dul ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha muy Touba ca kanam muy commune de Touba muy Hizbut Tarqiyyah yi ñëpp dañoo boole doon benn ak structure ànd liggéey bi ngir fexe ba ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënn mi ñu an fexe ba ndimbal yi sëñ bi génne ak nit ñi taalibe yi li ñu fi indi ñu fexe ba mu àgg ci ñoom loolu nag fi ñu toll di recensement bi lañ doon xaar ñu fexe ba. Euh, procédé par benn méthodologie bu leer nañ ba nga xam ne distribution bi dina gaaw waaye dina mucc ayib fi ñu toll nii def nañ ay points yoo xam ne ay points magasin yu yaatu yoo xam ne dañu fexe mu jege population yi waaj nañ tout le dispositif li doon xaar rek mooy préfet ñëw ñu mën a tàmbali liggéey bi kuréel gi nga xam ne moom moo di eh, junnatun liman nazamaho mi ngi wéyal liggéey bi nga xam ne mi ngi koy amal ngir jàppale ñi nga xam ne dañoo amoon jafe-jafe ci mbënn mi ba jot a génn seen kër yi ndax lu toll ci juróom benn téeméer ak ñeen fukki sinistré jot nañ leen recaser maanaam utal leen ci bërëb yoo xam ne moom lañ nekk ñu jotoon a mobiliser lu toll ci ñaar fukki kër yoo xam ne abal nañ leen ko loolu nag di liggéey boo xam ne amal nañ ko sur le terrain kenn ci eh, jëriñ yi nga xam ne ñoo yor eh, wàllum googu muy wàllum recensement ak recaser ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem ci kër yi nga xam ne moom lañ leen abal Serigne Khadim Dieng am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu teewlu ko. daanaka recasé nañ lu tolloog 29 euh, familles ci kër yi nga xam ne abal nañu ko euh, ci biir recasement yooyu nag buñ ko xaymaa ci kër yi nga ne moom lañ leen def dafa fasanti ko ndax am na ci kër yoo xam ne ni mën naa jël lu tolloog ñaari famille am kër yoo xam ne ni benn famille la jël am kër yoo xam ne ñetti famille la jël kër yooyu buñ ko xaymaa jamono ji war naa toll ci 20 maisons yoo xam ne ni actuellement ni recasé nañ ci ay familles yoo xam ne nii Eh, ci biir dëkk bi lañ dëkk dëkk ci quartier yoo xam ne ni yu fasantikoo la loolu mooy tolluwaay bi nga xam ne jamono ji may wax ak def nañ ko eh, nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag ci kër yooyu boo ko xaymaa ak kër wàllu gi moom tim daanaka ni may waxee ñoo xam ne ni jamono ji may waxee yéen ngi ci barab yi nga xam ne moom laa lim muy kër wàllu ak kër yi nga xam ne moom moo nekk Touba ñu abal ñu ko ñu jël nit ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci ndox mi ñu yóbbu leen fa mu nekkoon kàddu eh, Serigne Khadim Dieng yi nga xam ne yëkkati na ko doon indi ay leeral ci li nga xam ne moom moo jëm ci famille yi nga xam ne jot nañ leen recaser ci euh, kër yi nga xam ne abal nañ ko kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nasamoho mbokk yi ba léegi ñu wéyal xibaar yi ci kuréel gi ba léegi ci liggéey yi nga xam ne moom la ñuy amal jëriñ ji nga xam ne moom moo nekk ci bopp liggéey bi muy Serigne abibu Mbacke moom Cheikh Mouhamad Fadal ñëwoon na ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di jëriñ yi nga xam ne ñoo jiite commission yi doon saytu li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bi fan lañ ci toll waaye nag moom fësal na ak mbégteem santaat bu baax a baax ci jéego yi nga xam ne amal nañ ko ci mbooleem liggéey bi nga xam ne ba leen ko sëriñ bi sante ba léegi euh, ñu ngi ci euh, bay seen waar di ci euh, def liggéey bu am solo sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamad Fadal kaddu yi la yëkkati ginnaaw bu mu amalee nemeek googu ba noppi. may nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo ko ñoom tey jéggul bokki tari bi yëpp boo te gisuñu suñu jëmm ji waaye xat-xat jamono rek waaye sant nañu baax nag moo tax ñu tey ñëw waaye bàyyi woon nañu sëñ Abdou Lahad Abiba suñu maam Moor ñu teewal ñu fi ak njaboot Touba Ca sant sëñ Abdou ñu ngi lay sant baax di la gërëm sant suñu maam Moor taxawaay bi lépp dara umpu ñu ndax saa bu ñu doon jotee bu ñu wàccee bala ñu tëdd dañ mën leeral fi xew lépp ak fi jaar ak li li fi génn lépp wax nañ ñu ngi sëñ ak waa Hizbut Tarqiyyah yëpp waaye ñu sëñ Ka ak waa commune bi yëpp sant yàlla ci boole gi nga xam ne suñu boole ñoo yéen ci liggéey bi nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa ndax lu kenn man ñaar ko dàq ku ñaar ñaar man kenn ñetti bëri kuy sot nga xam ko waaw kon ñun ñëpp daa mel ne kon yoon bu ñu jógee sëñ Muntaxaa nekk ñeenteel bi nga xam ne mooy kenn bi ñeenteel bi yoo xam ne ànd ñoom liggéey liggéey bii ngi jàppale suñu bokk taalib ci liggéey bi ñu nekk ca loolu dañuy sant yàlla ci loolu baax a baax a baax tey soñ sama bopp soñ suñu bokk taalib yëpp waaye di soñ ci kuréel yëpp ñëw jàpp liggéey bi ba li ko suñu bëggee am na ndax demee tàmbaliguñ dugg dëkk bi xam ne daa mel tàmbali guñ ndax ndox mi ba tey nit ñaa ngi ci jafe-jafe yi euh, xëy moo doon suuf waaye lii mbir mu suñu borom wàccee rek ci kaw suuf la ay ñaan rek mu jeexal ko ci jàmm salaam tey ñu ñëpp ñu ñu ñu fekke ko Touba ci daal ñëpp ngi nii lii am lépp indi nañ ko fas yéene ànd si ma jataak laa am na ci wax maa ngi bopp di sant mboolu taalibe yëpp ñëpp dañ ci góorgóorwaat te xam ne acca murid moom jot na lu jot jot na nañ fexee nag lii moom bu fi amati ci àdduna te mën nañ ko saafara lu mënta am solution am ci àdduna nañu fexe ba bu déwénee dara du fi xewati te loolu nag dañuy jàpp te bàyyi rek murid yëpp bu xëy ñu dara ba léegi eh, ci xibaar yi fii ci Touba jëm ci eh, mbënn mi famille yi nga xam ne jot nañ leen eh, recaser maanaam utal leen ci bërëb yoo xam ne fa la ñuy nekkandeegum muy ay kër yoo xam ne abal nañ ko kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho ñu jox ko yooyu le njaboot ñoom nag fësal nañ seen mbégte santaat bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha di xalif général des jaarale ko ci kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho ni nga xam ne noonu la jàppalee ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekkoon ci jamono yi am na ñenn ci ñoom ay kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ñu teewlu ko. ñun nag ne newoon ci ay jafe-jafe ñoo ak sunu njaboot ñeen ñeenti famille lan nekkoon ci jafe-jafe nag di xuus xam nga sañ bi bam mu ñëwee démb gis na fam nu fekk jafe-jafe yu métti waaye ba ñëwee fii ba fi mu ne nag sunu xel daal na bu baax a baax a baax a baax a baax andil nañu ceeb andil nu diwlin andil nu suukar andil nu lépp def na ci néeg boo xam ne nag néeg yoo xam ne macha allah gën nag fam fan dewoon sax nag fii ñu nu andi moo nu ko dàqal barke sëñ Fallou ndax ñoo ngi ni ngeen andil nu ci néeg yoo xam ne macha allah yoo du nu màtt du nu tàng suñu climat ngi daw. ñun daal ñoo ngi sant yàlla di sant sëñ Mountakha di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen leen jiital ngeen teg liggéey bi ci yoon yàlla na leen fi yàlla bàyyi ngeen yàgg a dox ci yoon yi barke borom Touba. 50 millions de francs CFA moom la kuréel gi nga xam ne moom moo di Touba ca kanam. moom yëkkati eh, jébbal ko kuréel gi nga xam ne moom moo di eh, junnatun liman nazamaho nekk seen barkeelu ngir jàppale ko ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe ci eh, wàllu mbënd mi fii ci Touba ginnaaw liggéey yoo xam ne tàmbale woon nañ ko amal ko muy kër wàllu ak ay moto yoo xam ne jotoon nañ ko taxaw taxawoo ñi nga xam ne dañoo amoon jafe ci dëkk bi ñoom nag jébbale nañ seenu addiya ci kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne bàyyeekoo na fa Touba ci kanam ñu ngi yeesal seen pas-pas ak seenu jaayante ci liggéey bii nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha santaane na ko te ba mu tàmbalee ñu faboon matériel bi nga xam ne Touba ci kanam amoon na ko daa ko liggéeyee ci lu jëm ci lii ndax Touba ci kanam naka jekk lu aju ci dëkk bi moom moo tax ñu sos Touba ci kanam jëmmi dëkk Touba moo moo sos moo sos Touba ci kanam li ñuy laaj ak li ñuy dajale lépp it dëkk bi moo ko moom loolu nag tax na Touba kanam njëkk muy taw tàmbali liggéey yi nga xam ne baaxoo nañ ko def ndax am nañ commission bu ñu tuddee commission wàllu boo xam ne li ñu nopp lu néew na lool bi bi mu tawee itam ci taw yu jëkk ya ba ci taw bu mujj bu bari bii nga xam ne moo tax sëñ bi taxawal mbooloo mi fekk na ñoom ñu nekk ci terrain bi di jàppale nit ñi xëcc di di manque ndox mi ci mbedd mi di ko di di di ko génnee muy dem ci kanaal yi loolu liggéey la boo xam ne naka jekk wàllu commission wàllu dañ koy def fekkoon na itam ci itte si ak xalaatam mu am kër goo xam ne jàppoon nañ ne ñi nga xam ne seen ndox mi day nangu seen kër ñu war ko ñu am fuñ ñu ñu bëgg fuñ dugg ñu taxawu leen ba am ñu dugg ñu taxaw kër kër wàllu loolu lépp jiitu na soññeb sëriñ bi ndax lépp sax ci ndigalu sëñ bi la waaye nag jiitu na soññe bi nga xam ne sëñ bi da ko soññee yëkkati yëfi boppam def ci boole ñu ak commune bi ak isbu tawseya kon Touba ci kanam naka jekk mi ngi woon ci loolu waaye bi soññee bi ñëwee nag ñu gën cee soññiku fas yéene cee gën a takkaa suñu laxasaay moo tax matériel bi nga ne amoon nañ ko mu jëm lépp dañoo ñëw jëbbal ko kuréel gi li leneen lu fi ñëw itam te nga xam ne ñu koy indi dañoo wax ne dañoo bëgg mu dugg ci liggéeyu mbënn mi dañ koy indi jébbalaat ko waa gi lu mel ni ab ceeb ñëw na fi wax na ci sëñ Motulaay mi jiit social la jaar dañ koo jébbalewaat ab xaalis ñëw na boo xam ne itam dañ koo jé dañ koo jébbalewaat tey jii nag sëriñ Habib ak mbooloo mi génnee ci li nga xam ne daa nekk ci konti Touba ci kanam te nekkal fi sëriñ Touba nga xam ne Cheikh Mamadou taxaal bu ne woon tey li des ci ngoon gi dama bëgg lépp ngeen Euh, yu de ko yéen mat lépp tey ji dañ koy dindi yit ko ko loolee nag moo tax ñu xam ne lii liggéeyu Sëriñ Tuubaa moo tax ñu jël ci lu toll ci cinquante millions indi ko fas yéene ko jébbal waa kuréel gi ngir ñu def ko ci liggéey bi ci ndigalu du Mouhamadou Mountakha ndax sànq rek ginnaaw takkusaan rek jokkoon ak sëriñ bi jokkoon ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ba leerlu ko ba sëriñ Mountakha sëriñ bi xamal ko ne ko loolu yóbbu ko ci kuréel ga ndax yóbbu gi nga ko fay yóbbu ak gàttandu lay doon ab soññee lay doon noonu la ko sëriñ ak gàttandu la ab soññee la te soññiwaat taalibe yëpp nag ñu xam ne ñoom ñëpp taalibe bu ne waa nga cee def sa loxo kon loolu moo waral suñu bu indi ko fii ci kuréel gi di ko teg ci loxol suñu Yuusu ak suñu laat ka ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ seqal kuréel gi mbokk yi ñu tàbbi ci ñaareelu pàccu xibaar yi dañ koy jagleel commission sociale bi nga xamante ni moom mooy recaser ñenn ci njaboot yi nga xamante ni am nañ jafe-jafe ci wàllum ndox mi ginnaaw bu taw bi wàccee ci lu bare bëri fii ci Touba Mbacké ñoom nag commission sociale boobu nga xam ne def na ci liggéey yu am solo Serigne Khadim Dieng am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko leeral nombre de familles yi nga xam ne jot nañ leen recaser waaye kër yi nga xam ne abal nañ leen ko fii ci Touba Mbacké te teg ko ci loxo yi junatun liman nazamaho Serigne Khadim Dieng la ñuy ànd teewlu Euh, tey jii nag ñu taxaw fii ngir leeral situation yi nga xam ne euh, fi la toll nii ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu def mu jëm ci wàllum recasement ndax kenn ku ne xam ne ndox mi ba mu wàccee am na dégâts yu bare yoo xam ne ni bàyyi na ko fi te ba léegi nii ñun ñu ngi ciy liggéey ndax euh, nii may wax ak yow nii daanaka recasé nañ lu tolloog 29 familles ci kër yi nga xam ne abal nañu ko. ci biir recasement yooyu nag buñ ko xaymaa ci kër yi nga xam n moom lañ leen def dafa fasanti ko am na ci kër yoo xam ne ni mën naa jël lu ñaari famille am kër yoo xam ne benn famille la jël am kër yoo xam ne ñetti famille la jël kër yooyu bu ñu ko xaymaa jamono ji war naa toll ci vingt maisons yoo xam ne ni actuellement ni recasé nañ ci ay famille yoo xam ne nii ci biir dëkk bi lañ dëkk dëkk ci quartier yoo xam ne ni yu fasanti la loolu mooy tolluwaay bi nga xam ne jamono ji may wax ak yéen def nañ ko euh, nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag ci kër yooyu boo ko xaymaa ak kër wàllu gi moom tim daanaka ni may waxee rekaas nañu tolloog 640 nit ñoo xam ne ni jamono ji may waxee yéen ñi ngi ci barab yi nga xam ne moom laa lim muy kër wàllu ak kër yi nga xam ne moom moo nekk Touba ñu abal ñu ko ñu jël nit ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci ndox mi ñu yóbbu leen fa ñu ci bari seen dund yàqu na te xam ne ku dundam yàqu boo ko déplacé yóbbu ko feneen te fa nga ko yóbbu xamu fa kenn soo ko jàppalewul rek daanaka dama fa mel ne da bu ne rek lépp lu war ci ñoom commission sociale ñu ngi koy def bu jëmee ci wàllum faj ñu ngi koy def bu jëmee ci wàllum ñu ngi koy def bu jëmee ci wàllum courant ñu ngi ne la am na ko yëkkati nañ ko teg ko ci seen disposition ba fañ nekkoon moom fàtte nañ ko jamono ji may wax yi fañ nekk moom daanaka mën naa ne mën nañ ko tuddee àjjana ndax am na ci kër yoo xam ne boo fa demee sax booy dugg ci biir kër gi daanaka mën naa ne kilim gi moo lay dàq ba nga xamee ne ñoom dañ doon wax ne fii ñu ñuy wàcc nii de wax dëgg fa yàllaam ñoo ngi sant sëñ Muntaxa bu baax a baax ndax bu ñu taxawoon ne dina gën a ñi ngi wéyal nag di recevoir nga xam ne ñi ngi bëgg ñu recaser leen parce que jafe-jafe yi ba léegi mi ngi fi jógee gu fi lu ci bari nag naam wàññeeku na waaye ba léegi nit ñaa ngi demandé pour ñu jëlee leen fañ nekk yóbbuwaat leen ci yeneen kër yi kon loolu ci laay profité def benn appel woo ñi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi te sëñ defal leen tawféex ñu tabax seen i kër tëj ko te kenn nekku fa njabootu sëñ Tuubaa gaa ngi nii ci ndox mi nañ leen jëlee foofa ñu abal ñu kër yooyu ñu jël leen fa mën leen faa ñu liggéeyal Sëriñ tubaa ndax bu ko sëñ Muntaxaa mënoon moo koy defal ñëpp waaye ndegam ñun ñëpp taalibé sëñ Muntaxa te dañu roy li nga xam ne moom la sëñ Muntaxa def am nañ jumtuwaay yoo xam ne nii naam bari na wala mu néew lu mu mën a doon rek mu nekk bërëb yoo xam nit ñi mën nañ faa dem te ñu tëj ko nañ ko ubbi jox ko taalibé sëñ Tuubaa ñu dugal leen fa ba jafe-jafe yi mën a jeex ñu delloowaat leen seen kër kenn ko ne laal fañ la déplacé bàyyi ko xel fiñ la indi tim nga bàyyi ko xel bu baax a baax ndax kër yi ci boppam yi ñu yóbbu boo fa demee ci baree bari yu mucc ayib la nga xam ne kër gi borom màggalu Tuubaa moo tax mu defar ko demee lépp nga fekk da nga fekk mat la fekk fa télé fekk fa am na yoo xam sax da nga fekk kilim lu fa war lépp borom kër gi def na ko yow nga xam ne da amoon jafe-jafe soo daan yeewu say tànk ci ndox nga ko daan teg ñu yëkkati la jëlee la ci jafe-jafe boobu yóbbu la foo xam ne boo yeewoo mën naa ne ci karaw ko teg foo xam ne ne wuute na ak fa nga nekkoon kon lillaahi wa rasuuli na nga fexe ba sàmm alal jooju nga xam ne alali ko jox xam ne laal nam meloon bañ lay cay dugal nga fexe sàmmonteeg moom ba bañ lay ba bu jafe-jafe yi jeexee bañ lay yóbbuwaat feneen ba bañ lay yóbbuwaat fa nga dëkkaatoon kër ga mel na melaatoon ëllëg bu jafe-jafe yi mel ne borom kër ga mën a sawar mën ko yëkkati mën ko jox ne nag moom la ñu àndal ndax ndax fu ne la nit di woote ngir ñu jëlee ko foofu yóbbuwaat ko ci benn bërëb loolu nag day laaj équipe yoo xam ne yu xam terrain bi la yu bëgg liggéey bi xam ne ñi ngi ci nekk ci yoon bi nga xam ne moom la ñuy xaar ñu fas yéene ko amee comme ni ñu ko bëggee mbokk lii la ñu jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee muy bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di euh, Touba ci kuréel gi nga xam ne moom moo di junnatun liman nazamaho te sëriñ bi dénk leen lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum saytu ak toppatoo ñi nga xam ne dañoo amoon jafe-jafe ci mbënd mi fii ci Touba Mbacké sant leen gërëm leen dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan an aatikin maridi